baax ay baay wala baax ay maam wala bari la alal wala bari la xam-xam yu mel noonu yooyu moom comme nawlonte moom mën naa ñàkk nawlonte ci wàllu bokk doon jullit nag mën na ñàkk moom lu bëgg wax wal kafaatu nawlonte ga xaqul marati aqi jigéen ji la wal awliyaay ak kilifa ya fa in ittafaqa ndem dëppoo na moom jigéen ji maahum ànd ak ay kilifaam xalaat tarkiha ci bàyyi nawlonte googu maaxalal islaama ndaral islaam jaasa kon mu dagan lislaam jigéen ji ñu maye moom jullit la faaw dana aajowoo góor dañ koy may nekk jullit ne moom waaye bu loolu jàllee nag bokk di ñeeño wala bokk di ay tëgg wala bokk di ay ràbb wala bokk di yooyu yëpp moom amu ci solo bu fekkee ni jigéen ji nangu na xëy na moom géer la waaye nangu naa sëy ñeeño ay mbokkam nangu nañ loolu dara nekku ca bu fekkee ndax bari la nangu sëy ku ñàkk dara nekku ca bu bokkee ci famille bu baax a baax bu ñuy fonk lool nangoo see koo xam ne famille ba famille ba mbokk ku ñuy fonk it waaye moo ki mbokkum jubóo nañ ci la dara nekku ca arruknu ponk bi saadis bi ak juróom-benneel daa wax saadis waaye sara bi nee na alxamis mooy yàllan foofu waaye teewul nag saadis la wax muy fi ab juróom-benneel asixatu mooy tëgg ga dañ koy wax tëgg ga waaye mooy waxin wax lañ ci jublu waxin wa ñuy wax bañ xam ne kii ñaan na jabar may nañ ko jabar rek loolu lañ jublu ci asixatu mooy wax ya moom allah fi mooy baat ba allah ba nga xam ne yan xaqidu dana fasoo bi ci moom andi kaaw sëy ba mooy jokkalante ba xam ne kii ñaan na soxna may nañ ko ko fasiixatu tëgg ga wala waxin wa minal wali yi tukkee ci kilifa ga naxu an kaxtu mooy lu mel an kaxtu may naa la soxna wa zawajtu ak zawajtu ba tey may naa la soxna ñoo bokk takkal naa la waaye moom may naa la benn lañ wa siixatu waxin wa minal sow ji tukkee ci jëkkër ja naxu xabiltu mooy lu mel ne xabiltu nangu naa wa raditu ak raditu loolu nag mooy ñaari sart yi mënta ñàkk bu fekkee ne kii ñaan soxna ñaan na soxna mbaa ka ko fa teewal ñaanal na ko ki war a maye nee na ko may naa la ki mu ñaan rek dal nay baax jëm yi guro yëpp dañ koo sopp rek waaye xutba bi sax la ñu sopp ne xëy na guro yooyu mën naa ñàkk waaye jëm yi xutba bi moom sopp nañ ko am ku dagaan wax xub xutba am ku ko may wax xutba boole ja waaye bu amul tam dara du ca nekk wala yaxtubu du labat ahadun kenn xalaa xitbati axi ci kaw labatu mbokkam xaal ñu wax jamaale day araam bu fekkee ne kii wax ci jigéen ji sori na ci wax ja te moom ku baax la ka ñëw bëgg caa wax moo xam ku baax la ne moom moo rawante ne bu dee kàccoor moom day araam bu yooyu jamono mu dugg fekkee ne moom mi ci wax nag moom day ab kàccoor maanaam day mooy yàlla di ko fisal moom say boobu ku baax bu ñëwee di ca wax say boo ñu bàyyi ndax ku baax ko jël ko waaye bu dul loolu moom bu fekkee ki ci nekk ak ki fekk fekk suñu moo dong mbaa ki ci nekk moo ko gën te wax ja sori na kon ki mujj ñëw moom day araam mu wax ja day bàyyi rek bu ke wéyul nag mu door dugg wala yosul mu du waxaale it xalaa bi ak yi ci kaw waxaale wu mbokkam dañoo sosolo ci addis ba ñu andee noonu maanaam sa mbokkum jullit bu dee waxaale ci marchandise ba waxaale wa sori doo ñëw di ci dugg bëgg koo jënd di ko xëccoog moom da ngay bàyyi rek bu jëndul nga dugg waaye doo ci mën a waxati waaye nag bu fekkee wax ji soriwul moom muy jigéen ji muy njaay mi bu kenn dee wax mën ngaa di ko wax yooyu tam wala yajuusul dagan nikaahu shixaari sayub shixaar waxuma moom al burdahu moo di jaay pëy pëy buñ ko waxee mooy sawukaay bil burdahi jënde pëy ba tey mooy sawukaay mis lu an yuzawija mel ne bu mayee ar rajulu waa ji ibnatahu doom bu jigéenam li rajulin ñeel jeneen waaye xalaa an yusawijahu ci kaw moom itam mu may ko xalaa an yusawijahu ci kaw bu ko mayee al aaxaru ko ca des ibnatahu doom bu jigéenam walay sa baynahumaa te déet nekk seen diggante sadaaxun can sirib sixaar dafa am sarixu sixaar am wàccu sixaar am bu sixaar da ko teqalewut bi mu wax nag mooy sixaar bu wër bi xam ne dañuy weccee ay jigéen rek kii da koy may soxna kii may ko soxna nga xam ne bu li amul lee du am te kenn du jox sa moroom can waaw kenn du jox sa moroom can ba noppi bu li amul lee du am loolu moom mooy sixaar bi nga xam ne moo gën a ñàng te moom faawu des na ko dindi ba mooy kenn ku nekk dina jox sa morom can waaye dañoo sart ne itam bu lee amut lee du am sart bañ sart ne bu lee amut lee du am boobu moo ko yàq ak boo xam dañoo wax kenn ka can bañoo waxal kenn ka can ñett yooyu xëy na dañ ko leeral ci téere ci des waaye moom bokk na ci nga xam ne faaw ñu tebbi ko bu fekkee nii la demee nga xam ne kenn du jox sa morom can wala yajuuzu dagan nikaahul mut'ati say yóbbal waxu moom an nikaahu mooy takk ilaa ajalin jëm ci àpp o yëf sax def na ko firi xam li binaay ci njëkk wet ga ba baax dafa ak ci gannaawam bi xëyri talaaxin ci lu muy tase loolu dañ koy aaye maanaam di takk jigéen jubóog moom ci daal daalay takk ban am at ma bàyyi la wala ñaari at am nañ ko sàkkal àpp loolu dafa araam buñ ko yëgee faaw ñu tas ko moo xam jot nañoo wet moo xam jotuñoo wet buñ ko tasee ne xam ne tas nañ sëy boo xam ne ñëpp maas na ci ne yàqu na boo déggee bi xëy di talaaxin rek ci bunti mbirum sëy mooy sëy boo xam ne ñëpp maas na ci ne yàqu na boo déggee wa yufsaxu bi talaaxin nag mooy sëy boo xam ne ñee wax nañu wéram ñee wax ak ñàkk wéram waaye boo déggee bi xëy rek mooy dogoon nañ ci ne moom boobu sëy sëy bu yàqu la waaye jibu dana war fii ci moom sadaqul misli canu kem ilaa an yakun rek boo fa nekk xunaaka foofee tasmiyatun ak tudd mooy tudd ak can falaxaa ko ñeel na jigéen ji al musamma can gañ tuddante woon waaw nee na bu fekkee dañoo séyoon jëm cib dale ba ko yoon yëgee yoon ni da koy tas te fekk jot nañu wéet kon faaw dana ko jox can moom nag daa wax ne bu fekkee am na can guñ waxante woon kooku la koy jox bu fekkee waxuñu woon genn ci ràññeel nag kon mu jox ko canu kem ndax wéet gaay tax waaye suxutu dana rot xan xu walis góor ga du gétan ga du tax nag yàppe ko ku njaaloo ba gétan ko gétanu njaaloo waaye bu dee koo xam ne xaman naa ne loolu araam la nag mu song def ko moom daañu ko yar ba bu ëllëgee mañ koo def wayul xaq te def ne yëgal bi ci moom alwala du doom ja maanaam bu ci doom juddoo yonda ko koy ne ko sa dooma maanaam yonda na nangu ni moo ko daañu donante daañu defante lépp lu bàyyi doom di defante waxalee xaa war na jigéen ji it alxiddatu xidda ja kaamilatan mbir mi aji mat maanaam jigéen jooju bu ko yoon dindee ba sëy bi dañ balaa sëywaat feneen na iddaw iddaw iddaw ju mat ci liñ koy jàngee ci kanam ci coobare yàlla moom daañu wax idda daal laa bëgg a wax ñu koy defee walaay joo su dagan an nikaahu takk fil xiddati ci biir xidda sawaaw ma yemoo la kaanat moo xam nekk na xiddata wafaatin di xidday faatu aw talaaxin wala tase waaye nee na jigéen bu fekkee dafa toll ci iddawu moo xam jëkkëram daa faatu muy iddawu moo xam jëkkëram da koo fase muy iddawu su boobaa day araam nga takk ko day araam sax nga xëppat ne ko daala laa bëgg a takk dana ko wax léegi jëmi takk gi moom daa araam xëppati ga sax ne ko daal laa bëgg a takk mbaa di ko digganteeg moom daa araam waaye te ab badu dina dappetu waaye dana sax faaw taxarimu araamal nga fii ci moom bi waxta ci laal ga fil xiddati ci biir xidda ja aw ci gannaawam jigéen bu tolloo ci xiddawu mbaa mu toll ci laablu laablu mooy lu mel ne mu njaaloo mbaa ñu siif ko mbaa yu mel noonu yooyu jamono koo ci xam ne takk nga ko ci biir loola joteeg moom ci kaw takk nga ko takk mbaa sax idda ji jeex na waaye takk ba nga ko takkan ci biir idda ji ca la sukkandiku nag ba ba idda ji jeexee mu joteeg moom léegi mu jëmmi joteeg amul ci biir waaye ca la sukkandiku ba joteeg moom gannaaw ba idda ji jeexee yooyu yaar ñooyee moom faaw day araam faaw ci àdduna duñ seeti mukk mukk ci àdduna ñoom ñaar wa yaxrumu dana araam at tasrih wóoral ga xëppati ga bil xitbati ci labat ga fil xiddati ci xidda ja dañoo waxoon ne jigéen bi tolloo ci xidda de araam nga xëppat ne ko daa laa bëgg a takk moom lay wax ni hmm. mën naa gaaral rek nag muy wat taxariidu gaaral ga bil xawli ci wax ji almaaroof jëri xam mu baaxul lu ñu daganal la mislu an yaqoola kem wax ne ko indi naka man la raaxibun aji xemmam laa fii ki ci yow maanaam mën na koo gaaral waxin waxin wane ne moom mi bëgg na ko bu génnee ci idda ji mu nekk nekk yow ne ko yow daal man ku mel yow bëgg naa ko wala yow daal ku mel yow jëkkër dana ko yomb bu génnee ci li li nga toll waaye dañuy sart boobu bu bu fekk muy iddaw iddaw juñ ko mën a faylee maanaam bu fekkee jëkkëram mën na koo fayli idday fase dong la waaw te jëkkëram mën na koo fayli kon nañ jàpp ni ba léegi soxna la ci euh, borom këram ay jamono kenn mënu ko gaaral loolu sax waaw ki wax li day fekk muy iddaw yu faatu wala idda joo xam ne ah, ah, jëkkër ji mënu koo fayli xam ne xam ne moom jëkkër mën na fee jaaraat waaye gis na dagan lil xorri ñeel gor wal xabdi ab jaam nikaahu arbain xaraira takk ñeenti gor muslimaat ñu di ay julit aw kitaabiyaat wala ñu ko jug téere dafa wax ne góor gi moo xam gor nga wala jamono yi jaam amee ngay jaam ñoo ci yemoo bu la neexee takk ñeenti soxna yoo xam ne dañu nekk gor donte yow jaam nga yow góor gi waaye gis nga ay ay jigéen ñu la nangul yu la nangul nga takk ci ñoom ba am ci ñeent ñu say soxna ba te baax na bu la neexee na ñu di ay julit bu la neexee ñu di yahud mbaa nasaraan kitaabiyaat mooy ku nekk ci diine yahud mbaa diine nasaraan wala xam di ñeel na jaam nikaahu arbax imaa in takk ñeenti jébbeer muslimaat ñu di ay julit jaam amee bu fekkee ne yow jaam nga mën ngaa takk ci sa moroom jaam yu jigéen yi ñeent te du am benn sart bi la cay sartal mën ngaa waaxu rek daal di takk boo dee gor nag moom doo mën loolu jekki-jekki dem takk ci jaam yu jigéen yi tey fekk yow ngay gor moom wax naa wala xurru ñeel gor daalika loolee in xasiya neem ragal na alxanata njaaloo wala muy jitte amut tawlan can lil xaraayri ñeel gor ñeel gor yu jigéen ya wala muy jitte amut can lil xaraayri gor yu jigéen ya ay limu ci na maalun alal la jublu dafa ne yow boo dee gor na bala nga mën a takk jàmb jigéen day fekk ne yow lañ war a def ci gor ba am ci soxna amoo ko te it jàpp nga ne yow boo amul soxna doo mën a téye sa bopp faaw nga mooy yàlla su boobaa kon daañu la may nga takk jàmbu jigéen ci sart mu di jullit ab jullit boole ci kon faslun li ab dog la man ku nekk mutazawijan di aji takk bimra atayni ci ñaari jigéen aw ak sara mbaalu ko ëpp xaraira ñu di ay góor aw ima in ñu wala ñu ay jébeer muslimaat ñu di ay jullit jigéen aw kitaabiyatin wala ñu ko téere fa indahu naka moom yajibu dana war alayhi ci moom an ya'dila mu yamale baynahunna seen diggante nee na boo xasee lu benn soxna ki ñaar mbaalu ko moo xam dañu di gor moo xam dañu di jaam ci jaam amee moo xam dañu di julit moo xam dañu di yahud ba nasaraan ñoo yemoo da leen a war a yamale daañu wax naka yamale gi di ware ak nu mu war a demee fa in lam ya'dil ndéem yamaliwut fa huwa kon moom zaalimun aju tooñ la xaasinti aju mooy la lillahi ñeel yàlla wali rasulihi ak ñeel yonanteem ba daa wax ne ku yor lu ëpp benn soxna te yamale woo leen yamale ga nga xam ne moo ca war kon tooñ nga sa bopp mooy nga yàlla mooy nga yonant bi te loola musiba ma ci rekk lay dellusi kon nag laata joosu du dagan imaamatuhu ak njiitam wala shahaadatuhu du caageenu seereem anam koo xam ne nag yàlla yor na lu ëpp benn te yamalewu leen kon du matati ilimaan du doyati seere ndax dañ koy jàppe faasiq wax ji gën a wóor nag mooy ilimaan gi moom ndegam ajul ci julli ga rek du tee bu ko jiite itam mu baax ndax gépp caay-caay goo xam ne ajul ci julli ga rek wax ji gën a wóor mooy bu ci amutoon lay gën waaye su ci amee tam du njiit gi te giw te woowu caay-caay ajuwul ci julli ga moom wa jaxada ko weddi wujjoo baxoo ak waram faxu kon moom kaafirun ab yéefar la yustata bu def na ko tuubloo talaasan diirum ñetti fan fa in lam yatub dem tuubut faxu kon moom kaafirun ab yéefar waaw nee na yor gee diggante soxna ya mu yore moom dañ koo digal ci digal lu wóor a lu fés loo xam ne koo xam ne ngaa jàpp ne warut mooy dafa weddi ak waram dañuy jàpp ne kon daa weddi lu sax ci lislaam su boobaa kon dañuy jàpp kon daa murtat mooy daa génn ci lislaam sant ko diirum ñetti fan mu gëm ni loolu war la bu fekkee nanguwut deltu gannaaw jàpp ci lam jàpp rek kon ñu rey ko jàpp ne bi yëfër la su fekkee nag xam na ko ba noppi defu ko nag mooy faasiq bi nga weesu woon nga xam ne kàccoor la xëy na buñ ne du mat seere itam ilmaan gi li ma ci waxoon rek wax ji gën a mooy moom dana ko mat wal xaddu li yemale ga almadgoor ga di guñ tudd yàkkoon dana nekk fi nafaxati ci dund ba wal kusuwati ak koddaay la bi xasabi xaali kulli waaxidatin ci kem mbirum kenn ku ne leen lu aju ci dund bi ak koddaay li ak dëkkuwaay bi nag moom di wuñ ne faaw daa wara a yemoo képp képp kenn ku ci nekk rek boo ko defalee la yelloog moom rek baax na bu dee ñoo bokk benn dëkk waaye dañoo yemawul daraja kee di borom daraja te kee amul daraja kii mën nañ koy defal ci yooyu muy dund bi muy koddaay muy dëkkuwaay la tolloog ñamal ne moom nga féete suuf itam noonu bu dee dafa dëkk ci àll ba dëkk ci taax itam soxna sa dëkk ci taax yi da koy defal lu tolloog waa taax ya soxna sa dëkk ci kaw ga itam boo ko defalee lu tolloog ñoom nekkal foofa rek mu daal di baax googu yemale noonu lay mel moo tax mu naa fa sharifatu aji tedd ja bi qadri misliha nekk na ci kem a moroomam waddani atu aji suufe daraja it bi qadri misliha nekk na ci kem am moroomam ku tedd ki mën naa doon tedd ci alal mën naa doon tedd ci taar mën naa doon tedd ci bokk ci néew bu baax mën naa doon tedd ci diine ku yemaay ki it mën naa doon yamaay ci kenn ci yooyu comme ci man doon rek boo ko defalee la tolloog ñamel ne moom rek mu baax mu des nag yemale bu wér gi nga xam ne moom lay bëgg a wax muy boo film boo ak cappanaan maanaam nekk gee kee jàll nekk ak kee moom mooy panaan mi dañ cey boole bëccëg bi itam dañoo bëgg rek panaan mi jiitu mooy guddi ki jiitu waaye kooku nag moo war a yemoo képp moom nga xam ne ñëpp ci yemoo ci ñi nga yor falaayu duxulu du sañ dugg li xaajati yi ngir aajoom xindaman fa ka nga xam ne lam takkun amut ak ayam wa innama yatlubuha naka dana ko sàkku min xaarijil bayti ci bitti néeba waaw nee na bu fekkee wër laa nekk kii kee nga aaye nga am soxla nag ci kee nga xam ne aayoo ci moom kon doo sañ a jékki-jékki waaxu dugg rek ngir sa soxla soosee da ngay taxaw ci bunt ba rek laaj ko ñu jox la ko waaye bul dugg ci biir wal xas mu seddale ga nag bi yow mi nekk na ci ab bëccëg wala lit ak guddi maanaam seddale bi nekk gi moom dangay nekk fekkee guddeeg bëccëg nekk fekkee guddeeg bëccëg lu may dañoo nekkul ci benn dëkk fekkee kee daa nekk ci dëkk bee kee nekk dëkk bee moom kon mën ngaa seet beneen séddale bu ëpp boobu andi fee ay wis mbaa nu baaxee ci yéen rek hmm. bu fekkee ne tam fe da nga faa am nag liggéey boo fay liggéey te amoo ko fële ah, kon kon nga am liggéey moom loolaay tax kon du mën a fa nga xam ne amoo fa liggéey wala yàq si mudu séddale bi yow may ñaari fan illaa bi ridaahunna illaa bi ridaahunna ndara ci seenu gërëm seenu gërëm mooy seenu nangu rek daa wax ne doo sañ a jékki-jékki ne leen ci forcé damay nekk fay ñaari fan baalu ko ëpp door a jàll nekk fay ñaari fan baalu ko ëpp déedéet bu fekkee juboon nañ caa yow nag loolu mën naa nekk waaye ñoom buñ dogoo ci kenn ku ne da ngay nekk fi mu benn fan jàll ci kee loolu rek ngay sañ a def faidataani lii yaari njariñ la al ula bi ci jëkk mooy laa yusibu du sañ a joteeg ar góor gi zawjatahu soxnaam aw amatahu wala jébéeram wa maxaxoo te fekk mu ànd ak moom ahadun kenn fil bayti ci néeg ba kaana moo xam nekk na saxiran di gone aw kabiran wala muy mag yàq daana muy aji yeewu maanaam muy ñàkk nelaw aw naa iman wala muy aji nelaw waaw nee na kenn du sañ joteeg soxnaam ba jamono yi jaam amee jaam bu jigéenam joteeg moom ci sawgaay lay bëgg a wax ci néeg boo xam ne keneen a nga fa moo xam keneen kookee gone la wala mag la moo xam day nelaw moo xam nelawut foofu am na teqale bu fekkee ne kooka mag la te nelawul boole ci moom day araam bu fekkee ne kooka nag gone la mbaa mag la waaye day nelaw nag ñu sib ko rek yem ci attaaniyatu ñaareel bi mooy yukrahu def na sib an yudaaji'ahunna mu tuddanteeg ñoom fii firaashin cib lal waaxin bu du benn waxi waxees na sax ne yaxrumu dana araam maanaam mu boole ñaari soxna wala ñetti soxna bokk ñoom tëdd ci benn lal jotiwute ñoom dara sax tëdd kese la waaye daa bokk ak ñoom tëddandoo ñoom ci benn lal mu ne loolu am nañu wax ne sib la am wax ne itam araam la waxtu li fa wuteef na fii jamxil imaay ci boole jébbeer ya la waxees na ah, faqila a ah, mi ngi ni faqila waxees na ne ye joos na nu dagan waxila waxees na ne laa ye joosu du dagan maanaam ay jébbeer mu bokk ñoom tëdd tëddandoo ñoom ci benn lal am nañu ne sañees na ko ndax ñoom seen fiir kenn du ci fiire sa morom daanaka am nañu ne sañuñu ko waxiila waxees na ni yukrahu def na ko sib waaw ñee da ko aaye ñee dañ ne araam na ñee ni araamut ñee ni nañ ko haada lii lépp nag fil mubaajaxati nekk na ci tëddante ga xanaa bu dee tëdd kese rek la ñuy wax àtte boobu dew ama wattu ihdaahunna ndaal laal kenn ci ñoom bi maxdaril uxra ci teewaayu ka ca des falaa yujoosul dagan ittifaaqan ci datoog ñëpp nee na bu tëbee bu dee tudd kese tax ñu wax waaye bu dee jotee kee ci sawukaay kee di teew moom ñëpp maase nañ ci ne araam na wa haada aaxiru ma mooy mujjug li nga xam ne arad naa namoon nanu jamxahoo ak dajaleem min masaa'ili nikaahi ci masalay sëy a nee lii nag laa bëggoon wax ci mbirum takk sëy bëgg a jëm nag ci tekki gi mooy fase wa ama talaaxu daal fase fa huwa moom maxuudun luñ jàppe la min xawli ko ci sa wax jene atalaqtu boyal naa an naaqata nagg ga fan talaqat te mu boy ida arsaltaha ndem boyal nga ko min xiqaalin bàyyi koo ci rat rat xeetu yeew la aw xaydin wala tënk waaw nee na talaaq boobu dafa bàyyi koo ci atlaqa boyal na boyal mooy yeewi rek mooy libéré libéré mu dem léegi bu fekkee gëlee moom da koo ratoon wala mu tënkoon ko ba yàgg mu jekki-jekki dindi rat ga wala tënk ga rek loolu ak boyal la tudd loolu moo cosaan ci baat bi ci luxa xaw naa am roog maanaa wi nag bu dee ci yoon tam ndax mooy fa kullu zaati zawjin jëpp jigéen ji borom jëkkër moo saqatun ku ñu yeew la indi zawjiha fa jëkkëram fa ida faaraqaha ndem teqalikoo naag moom rek atlaqaha mel na ne boyal na ko min wasaaqihi ca buumam nga wala ci yeewam nga ba tey kon nee na jigéen bu yoree jëkkër day mel nañ koo yeew ci buum jox catul buum nga jëkkër ja saa yu neexee jëkkër ji rek mu daal di koy yewi loolu mooy mbirum pase suñu borom mi ngi ko rek mi ngi ko teg ci loxol jëkkër ji saa yu ko neexee rek fase ko kon wattalaaxu pase luxatan ci langu arab rek muy luxatan ci luxa al inqitaahu moo di ak dog wa dahaabu akuk dem wastilaaxan bu dee ci dëppoo ngi dégg fiq xallul xismati mooy fecc buumuk sëy ga almun xaqidati ga ay ji fasu bayna zawjeeni diggante jëkkër ak jabar kon nee na leeral gaangoog mën nga nekkoon kon baatub talaaxu bu dee ci làngu arab rek moom mooy dem wala départ waaye bu dee ci dëppoo ñu dégg fiq xam ne suñ ko waxee loolu na ci jublu nag mooy buumu sëy gi doxoon diggante góor a jigéen ñu fecc ko nga xam ne jigéen ji nekkatul ci buumu sëy loolu jublu ci fasin wa hada lii nag amrun mbir la jaxalahoo moom def na ko allahu yàlla taxalaa kawe na bi aydil aswaaji ci loxoy jëkkër ya doona zawjaari ci lu dul soxna ya nee na mbirum passé moom nag yàlla mi dogal moo dogal ne jëkkër a ko yore mooy góor ko moom waaye jigéen du ko yore benn yoon góor gi moom moo sañ a fase moo sañ a bàyyi waxoo moom nag ala xismayni nekk na ñaari xaaj mu baaxun mu ñu daganal wax wate moom talaaqu sunnati muy pasem sunna wa maxdurun ak mu ñu tere wax wate moom talaaqul bidaati mooy pasem bidaa nee na pase nag daa doon ñaari wàll am na wàll goo xam nañ koo toof sopp mooy boo xasee bay pase noonu la sunna noonu la na diglee nga pasee noona anam nga gis na moom dafa aay maanaam bonut boo ko defee na mu dal waaye nga di ko moytu ndax koo tuddee pasem bidaa waxoo moom na pasem bidaa ak talaaxu mooy pase talaatan ñetti pase fii kalimatin ci baat waaxidatin bu di benn daa wax ne pasem bidaa moom mooy nga jekki-jekki fase sa soxna ñetti fase ci benn jataay wala ci benn baat niki boo jekkee jekki ne ko fase naa la ñetti yoon ci benn jataay loolu bu dee fiqu Maalik moom day jàpp ne ñett ngoog ba tey boo nee ko passé naa la passé mu dog mu dog ji moo ko yóbbu ñett wax dañu xam dog moom ñett rek koy def waaye na mën nga ne rek gannaaw boo xasee xam sart yi passé sunna ba noppi nag man nga door ne nag kon bépp passé boo xam ne sart yi xëtt na ci rek passé bi daala looloo gën a gaaw te mi ngi lay bëgg waxal passé sunna nan lay nan la ay sartam wali talaaqi sunnati ñeel na passé sunna shurutun ay sart an takkoon mooy bu nekkee al mutallaxatu kañu kañu pase mi man di jigéen joo xam ne taxiidu dana mbërëk ah nee na bokk na ci sart ya balañ caa wax dara mu doon koo xam dana gis deret ak baay waaye bu dee koo xam dafa naagu ci gis ko ndax mu mag wala mu ndawee ba du ko gis kooku moom saa yu la neexee rek fase ko amul benn sart bañ ci wax ndax iddaam moom du yokk du wàññiku ndegam du gis deret rek moom te ëmbut boole ci ñetti weer lay am rek moom kon nag saa ko fasee rek baax na waxtu woo ko passé du ko tax doon bidaa moom wa an laa takkoona ak mu bañ a nekk xaa idan di aji mbërëk wala nu fasaa du caagéenu aji ame dereti wasin ab sart la ci ki ngay fase toll ci laab bu tolloo ci amee dereti mbërëk wala mu toll dereti wasin moom boo ko fasee du yem ci pasin bidaa waaye day araam boole ci te dañ lay forcé sax ci nga fayli ko te doo ko sañ a bañ li fekk matul ñett xanaa bu dee mu mën a fayli te fekk mu toll ci deret faaw ñu fayli ko faaw ko ci mu fayli ko wa an laa tak wa an takoona wa an takoona ak mu nekk fii tuxurin ci ak laab lam ya massa goog laabu ko fii ci moom maanaam lay tax pase ma nekk pasem sunna mooy mañ taamu mooy jamono nga koy fase fekk mu toll ci laab mooy gisul dereti mbërëg gisul dereti wasin te it biir laabu jotewoo ci ak moom benn yoon loolu jàpp ko mu ñaari takk waa ñu tallix ak mu fase fii ci moom waaye da tan menn pase bokk na ci sart boo koy fasee nga fase ko benn dong bañ koo def ñaar mbaa ñett su xasee nekk ñaar limu rek wala ñett rek daal soppi ku pasem bidaa te mel ni mi doy na ndax bu fekkee tàggoo moom dong nga jublu moom su idée ji jeexee te fay ko rek tàggoo ngeen yéen ñaar kon mu waxaat sart yi pasem sunna rek nga jàpp ko benn benn mooy bi koy fase fekk mu toll ci laab muy benn te laab nga jotewu ci ak moom dara muy ñaar te bi koy fase nga fase ko benn dong muy ñett te nga bañ caa dolliwaat meneen ba kere idée ji jeex te xam nga boo ko basee mel ni itam li fekk idda ji jeexut sa soxna la ba tey kon boo ci tegaatee meneen faaw mooma dal da nga ci bañ a tegaat meneen nag ba idda ji jeex sart yi bu ci dajee rek noonu lañ ko taamoo woon ci sunna mooy noonu lañ bëgg nga fa ni bu xëttee benn rek xamal ne kon yaa ngi dugg ci pasem bidaa waman xaala ku wax li sawjatihi ñeel soxnaam ne ko anti yow taalixun aji fase nga fahiya moom loolu waaxidatun benn lañ koy jàppee xataa yanu yo ba te mu yéene ak saralu ëpp min ko ci loole maanaam bu waxee soxnaam ne ko fase naa la mbaa may naa la sabaat ndax may naa la sabaat dañ koo miin fii waaye ak fase rek lañ ci jublu waaw fase dong lañ ci jublu loolu su koy jëkkër ji waxee dañ koy laax dañ koy wax ne ko loo jublu ci loolu ndax benn fase nga jublu mbaa ñaar mbaa ñett bu waxee benn mbaa ñaar ñu ne ko kon mën nga koo fay li bu waxee ñett ñu ne ko kon faaw jëkkër jaaraat mu des na bu fekkee dafa mel ni aada wala fi nga xam ne xam yowuñ benn parce que ñaar ñett kooku wax ji gën a wóor mooy dañ koy jàppe benn rek wax ji gën a wóor mooy ngir yombal lislaam dañ koy jàppe benn rek su idda ji jeexul mën na koo fay fayli su idda ji jeexee mën na koo takkaat waaye jërul ñu koy jàppe ñett muy indi jafe-jafe le wal xulxu summi ko talxatun menn pase la baa inatun muy aji facc bu ñëw muy aji facc mooy amut fayli laaraj xata fay fayli fii haa muy nekk ci moom wa nag lam yu sàmmi ak doonte tuddut talaaxan am pase ida atatu ndem jox na ko shay an dara yax yaxlauha lool dana ko summee bi ci moom min nafsihi ci boppam summi ko mooy bu jigéen ci doyalee ci sëy bi ba jaral ko joxe alal kooku nag moom nee na bu la xasee jox alal nga nangu te nga xam ne xam nga ne bëgg ko may baatama tax soo ko waxul ne ko fase naa la tuddoo dara lu nuru loolu tam yoon day jàpp ni moom fase nga ko benn pase boo xam ne amul fayli doo ko mën a fayli bu ëdda jeexee bu ngeen nga takkaat ko rek waaye amul fayli ndax soo ko mënee fayli kon mu ñàkk ñaari yoon ñàkk àlla ba noppi nga mën koo fayli delloo si loolu mënta am wa arkaanu yi ponki pase arbaxatu ñeent la maanaam pase am na yeent yoo xam ne mënu caa ñàkk mooy tax pase am al awalu bu njëkk bi muuqixu talaaxi mooy aji dalal pase ma man nga ne mooy aji def rek pase ma mooy mënta ñàkk ko xam ne mooy fase wa chartuhu ab sartam an yakoona may mu nekk musliman di ab mu kàllafante mu lay tax passé maanaam mooy ka koy def nekk di jullit bu dee yéefar duñ faale am passeem doon ñett la waxi dees ko faale tam doon mu kàllaf bu dee gone duñ faale passeem kilifaam mooy ñëw rek bu ko dee wéyal wéyal ko bu ko dee dindi dindi ko duñ faale passeem moo tax teg ci falaa yenn xaqidu du fasu talaaxul kaafiri passeem yéefar wala sabi yu du caageen gone wala man du caageen koo xam ne zaala rëcc na mooy dem na xaqalu ko xelam bi junnoonin ci ak ndof aw aw naxwi dalika wala lu mu roog loolu koo xam ne dafa tàggoo sagoom la ko tàggale sagoom du coobareem ni ki ak ndof moo ko jàpp wala xëm ak demee noonu bu waxee baati pase itam kenn du ko jàppee war sakaraanu yi nag bi xam ren ci sàngara aw nabisin wala am xonj xonj mooy njambaan al mashhur la ñu siiwal nufuudu talaaqihi mooy wéyuk am paseem xaalahu wax na ko fil jawaahir ci jawaahir te wa zaahiruhu soo xam ja mooy may yeesa moo xam xàmmee na asamaan ak suuf am laa wala xàmmee wut asamaan ak suuf maanaam daa wax ne koo xam daa màndi màndi moo xam ne moo ko tey lëg ko yóbbi moo ko def ndax moo fekk sàngara wala njambaan moo xam ne àgg na ci mën a màndal mu daal koy naan màndi xam lu araam la màndee kooku moom wax ji gën a wóor mooy bu tuddee baati passé ñu jàppee ko ko mu ñàkk soxnaam moo xam daa màndi màndi gu ëpp ba xàmmeetul asamaan ak suuf mbaa dara wala teewul mi ngi ñoo ci waxtara sa wattandikoo na bi xawul yi ci waxam ji ne bi xamrin ci sàngara aw nabisin wala am xonj xamma ci boo xam ne law shariba doonte naanoon na labanan am soow aw akala wala mu lekk taxaaman aw ñam xalaal ru eggi dagan aw dawaa an wala saafara fa sakkirate mu màndi min hu ci moom fa innahu naka moom in tallax ndem pase na fii tilkal xaalati ci moomali mbir laayel sama hoo du ko war talaaxun pase ijmaaxan ci dajëk foore yëpp li tax mu ne la ku ci sàngara wala mu màndee ci njabaan nen day dalay bëgg xamal ne la bu fekkee dafa mànde woon mànde koo xam ne tey ko la mànde ayut ni ki am soow la naan rek soow mi am doole far ko màndal wala aw ñam la lekk rek ñam woo far ko màndal wala garab la gum doon fajoo rek far màndikal ko ca yooyu jamono bu yi itam du tax pase ma dal dara du ko ci war ab taani ñaareelu bi almahallu mooy béréb ba dangaa waxoon léegi kii def pase mi nga teg ci béréb ba pase may dal biñ ko dóoree waxoo moom nag béréb bi asawjatu mooy soxna mooy kañi fase soxna lay doon wa chartuhu ab sartam milku saw ji mooy moomu jëkkër ja xismatal marati bu mu ja xawla talaax ci njëkk fase ma li tax nga mën a fase jigéen mooy nga moom bu mu mooy mu doon sa soxna njëkk di ko fase waaye bu fekkee doonagul sa soxna doo ko mën a fase lu may nga aj ko ci bis moo ko takkee su boobaa nag aj fase itam bokk na ci li tax boo ko takkee mu daal di ajji ko mu daal di fase ak sa ñetteel bi alqasdu mooy jubloo pase fa man sabaxa ku rëcc lisaanuhu làmmiñam ila talaaxi jëm ci pase lam yaqax du dal yi war ko talaaxun pase li ko ñetteel nee na mooy nga jublu woon a pase ci sa xol bu fekkee soo làmmiñ moo rëcc rek nga tudd sa soxna ne ko fase naa la waaye jublu woon wax loola làmmiñ waa rëcc nga jum wax ko rek du tax mu doon pase wala yaqaxu du tàbbi it talaaqul mukrahi paseem ku ñu xanaa buñ la forcé woon ne la woo boo fasewul si soxna si ma la baa ma dóor la dóor yu métti baa ma tëj la kaso baa ma dagg sab loxo ba sa nangam ba tax nga fase itam du tax fase ma dal xanaa dañ la caa forcé rek du tax dara war la jaam arraabihu ñeenteel bi allafzu mooy baat ba aw ma wala la nga xam ne yaqumu dana taxaw maqaamahu ci taxawaayu baat ba ne fi'l li ci jëf ñeenteelu ponki pase yi mooy baat ba ngay wax bañ xam ne pase Thank you.